ngi tudd Malick maire de la commune de Kër membre du conseil des collectivités territoriales. li nga xam ne moom moo ñu fi dajee tey ñu convoqué ASC yi ak acteurs yi nga xam ne ñëpp ci wàllu jeunesse bi lañ bokk ñu dajale leen pour jox leen seen subvention 2024. ku ne xam na mission collectivité territoriale yi wàllu ndaw ci la bokk donc muy un domaine de compétence boo xam ne dañu ko transféré donc loolu moo commune bi chaque année li ko war ci ASC yi ci secteur bu ne mu jëm diko def walu subvention nak ci la bok moo ñu fi dajale tay ñu ñëw di leen koy téla jox pour que ñu mëna gëna préparer activité nawetaan donc ASC yi nga xamné tay euh, jot nañ seen subvention ñu tollu ci 26 ASC ASC bu nekk euh, jox nañ ko une enveloppe de 80000 000 ce qui veut dire que euh, chaque année dinañ yok subvention yi yaakaar naa quarante lañ déparé waaye euh, ñi ngi ñëw ba 80 000. Euh, li ci ëpp nag ci subvention yi buñ koy joxee vraiment dañuy bëgg ASC yi di dugal seen loxo ñoom aussi ci développement bi parce que wax naa leen ko nanaa leen nag yor sa récépissé wala leneen ñëw ñu jox la subvention nga dem tëdd loolu aussi nañ ko éviter acti ASC yi nañuy dem di def ay activités de set setal di def ay activités citoyennes Euh, chaque année ci seen dëkk yi wala ñu koy def ci biir commune bi loolu nag am ci solo yaakaar naa ñëpp dégg nañ ko ta ñëpp d'accord nañ ci euh, mu nekk loo xam ne aussi dina leen permettre ñu préparer nawetaan 2024 yi ndax ñu ngi jublu ci euh, tirage ci fan yi di nyau, yaakaar naa commune bi bépp matuwaay bu mu akompanye a jël pour accompagner ndaw ñi yaakaar naa jël nañ ko ba pare len rek laa xam ne nañu wax ne Euh, am na te xaj na duñ ko bëggee woon noonu waaye yàlla moo ko dogal parce que ren baxoon nañ xel ne activité nawetaan yi dinañ ko footballé ci stade municipal bi mais yàlla def na liggéey bi ba léegi am na lu ci des ay finition ce qui veut diir que daal duñ ko fa mën a footballé amaan na nag balaa nawetaan bee jeex ñu mën a yeggalee foofu mais en tout cas bëgg-bëgg bi moo doon ñu futbaleeku foofu ndaw ñi nag ci secteur bu ne ñaax nañ leen sax pour ñu gën a góorgóorlu ah li nga xam ne mooy wàllu football bi eh, wax nañ leen aussi heure boo xamee ne yàlla dimbali nañu lii stade bi pare si jàmm mu am terrain handball am terrain basket am piste d'athlétisme ak yooyu ñu xam ne eh, léegi nag subvention yi ñeneen ak ñeneen am nañ ci wàll muy wàllu làmb daw ak basket handball ak yooyu yëpp ay discipline sportive la ñooñu ñëpp si mbir mi lañ bokk. ñu ngi subventionné 26 eh, ASC yi jeexuñu am na yu des nag. donc euh, mu toll ci deux millions cent trente mille yu ñu joxee gum xam nga euh, ndaw maanaam li nga xam ne tey jii mooy mooy euh, activité jeunesse dafa am solo ñun dañoo bëgg mu gën a yaatu parce que boo gisee ñu tànn tey def stade boo xam ne dimension deux cent mètres carrés la pour fexe ba disipline yi yëpp man fa nekk culture bi dafa war a développer parce que tey jii bëri nañ fi ay boo yoo xam ne am nañ ay talent mais euh, possibilité yi ñu mën a am pour doxal loolu amuñ ko mais bu ñu amee place boo xam ne képp ku mën a bëgg a def dara moo xam waykat la moo xam ci wàllu activité culturelle moo xam ci wàllu aada cosaan football daw handball basket làmb même ay conférence yu munta doon am nañ place bi bu ñu amee place bu am mucc boo xam ne nag lépp mën na def loolu day tax ñi nga xam ne tey jii daan nañ dugg ci discipline yooyu di ko def te daan am ay jafe-jafe parce que actuellement may wax am na ñu fi ñëw di abbu euh, saal fu ñu fu ñu defee karaté donc loolu yëpp dinañu permettre que discipline yooyu yëpp mën a dox ñu suqali ko léegi nag bu ñu amee place yi ba pare commune bi gën a yokk góorgóorlu fexe ba ku ci ne mu am lum la accompagner loolu dina tax sport bi dund fii. bu dee stade bi la foofu amul jafe-jafe parce que biñ koy def xool nañ place bu ko man du am benn jafe-jafe mais terrain bi. dafa nekk ci kii bi jege ay zone yoo xam ne yoonu ndox la côté yi am ay gas-gas yoo xam ne am ay kàmb je pense que moom lañ doon wax léegi que bala ñu def tirage bi bay kii dinañ fexe mobiliser jeunesse beeg waa zone ñun ñëpp ñu dem fexe ba defaraat euh, terrain bi ba dina ba man fa defee activité yi nga xam ne mooy 2024. maa ngi tudd Souhaïbou Badiane nekk président di liggéey ak ndaw ñi fii si commune bi. maire dafa jaar fi mu laan jaar la ñoo jaaraat. ndax chaque année day yokk si xar mi karaw ndax lii bi mu koy commencé subvention mosu fee am mais moom moo fi ñëw commencé fi subvention ak quarante 000 boole si ay peer yi mayam ak ak i ball ñu dem chaque année muy yokk ñu dem ba mu yem ba 10 50 000 année bi passé mu defaat ko 70 000 bon ren bu ñëwatee def 80 000 dama naan maire ñëw na ak mbaninam te dafa nekk foofu da ko defit fi mu ko war a def def ko fi ko ASC yi soxlaa ndax ku ne nawetaan ne fond boo demee nawetaan ndax suyeer bu si nekk yaa ngi soxla say licence yoo ko defaree te bëri na ASC yu bëri amuñ fond de caisse kon lii bi ñu ko amee day nekk loo xam ne danañuy dimbale kon moo tax ma naan maire dafa ñëwaat defati nam te lii fi mu ko def dafa baax ndax gars yi ñi ngi waaj def li nga xam mooy tirage pour football newetaan yi ñi war a uti ay récépissé ñii def li nga xam ne mooy affilié wu rek affilié wu yooyu yëpp euh, ñu si ko kon bu ñëwee fekk leen une amalo quatre day nekk loo xam kon maire dañ koy félicité si loolu te ku xam maire monsieur le maire El Hadj Malick Ndiéguène da nga koy xam si set gi xam ko si sell gi kon koku bu ooy ay ndawam si set da leen oo si boppam te loolu ASC yi pare nen pour def lu mel noonu te euh, ma jox la beneen misaal boo xamante yi rek mi ngi loon ñu tourné loo si ASC yi si soixante villages yi ñu xool dëkk yi nga xamante ni amuñu récépissé ngir lan yaatal gi nga xamante mu ngi koy def si ASC yi pour ASC yi ñu recensé leen mu utal leen ay récépissé ba fii ma wax eh, wax ak yow ni daanaka liggéey bu moom noppi na kon loolu bu ñuy ooyee dañ koy wax ne ko woona si li nga xamante ni mooy maninam woo nañ si li nga xamante ni mooy jëfam muy set ak selal ak jub ak yaatal kon monsieur le maire foofu it encore da nga ko siy félicité si loolu di ko wax ne macha allah def ñuy oo si li nga xam ne mooy liggéey te incha allah ASC yëpp da ko si fekk si bu neexee yàlla.